moo tax ñu gëm ni sénégalais yi yeewu nañu manipulation yi bëri na yi manipulation yi bëri na jaxase gi bëri na sos gi bëri na ñu koy def nag jë jëmale ko ci ñaar benn bi ñu ngi ko jëmale ci nitu diine yi rawatina kilifa yu mag yi tey démb damay waxtaan ak benn kilifa mu ne ma dama seeti woon kilifa sàngam waaye moom dañ koo indi benn vidéo boo xam ne ba nga jaaree ci dëkkam ci jamono campagne bi danga ko tuddul gërëmoo ko ziare woo ko ma ne ko waa xaaral ma dem ci YouTube génne vidéo bi yónnee ko ne ko xoolal à partir de une minute écart moom laa njëkk a tudd mu ne ndekete ñoom dañoo dagg li ñuy dagg dem toog ci kilifa ga ne ko gis nga waa ji dalay xeex wala yéegu la wala euh, naw la yooyu nag bis bu ne ñu dund ko bis bu ne ñu dund ko moo tax njàngaleem diine xam nga bi alquran daan in jaakum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu loolu ban siècle la woon est-ce que boobu nit mënoon na xalaat ni vidéo dina am ba ñuy dagg di monter wala sax ñu jël ay voix di ko reproduire ma production nag di waxtaan ak sénégalais yi ndax bëri na samay mbokk sénégalais loo xam ne lu ñu xëy dégg ko rajo rek pour ñoom dëgg la lu ñu xëy dégg rajo rek jàpp nañ ni dëgg la bu xibaar ñëwee nañ ko settantal ndax li ci yàlla doon bañ mooy nga lor koo xam ne wax loo xam ne dina la dugal wala yu mel noonu loolu ci yàlla doon bañ bëri na koo xam ne ah su moyetul de li muy wax ci nit te xamul nit ka bis bu ne ñu wax loo ko loo xam ne xamul nit ka mun na lor ñu bëri de kon ñu ngi gërëm suñuy kilifa diine di leen wax ni ñun doomu réew mi lañu yàlla bokkale ñu fépp nag fépp lañu bokk nii dañuy wax Casamance Casamance rek alhamdulilah waaye fu ñu mun a génne ci senegal ne fii awma fi ay mbokk lenkee laa wax nag amut juddoo fi yaroo fi màggee fi jàngee fi bëgg réew mi nag mbëggeel gu amul fu mu yem bëgg réew mi mbëggeel gu amul fu mu yem gëm ni nag li ñu yàlla wàccee ci kaw suuf ndax nag ñun ñëpp dañoo am mission inni jaayun fil ardi xalifa la waxoon waaye xalifa boobu kenn ku nekk day commencer sa kër sa quartier sa commune sa département sa région sa réew sa continent loolu mooy suñu mission ñun ñëpp di wax tamit ni bër na lu ñuy wax ni am na ay ndaw yuy woote ci ñun te léeg ñu wax lu ñagas lu jëm ci kilifa yi ma waxaat ko fii ni ma ko waxoon juróomi at ci gannaaw ci màggalu Tuuba képp ku yëkkati lu àndul ak orma teg ko ci dere deru kilifa diine bokkoo bokkoo ci ñun ku ko def bokkoo ci ñun ndax wax ji bëri na waaye kilifa diine yi demuñu ci kenn ni ñee leen di fekki ña nga toog fi ñu toog di liggéey lañuy ñuy liggéey te yàlla ngi ciy def sutura jullit ñu jàpp ci te it am nañu sañ-sañu am seen xalaat man munuma ne kilifa diine yi ne fii ànd ak man bu ñu waxee lu baax ci man ma ne bravo beneen kilifa diine ne ànduma moom wax leneen ma ne tey ma rey sam bopp am nañu sañ-sañu wax seen xalaat ci réew mi loolu mooy yoon kon ñun benn adversaire lañu am benn adversaire lañu am amuñu beneen amuñu beneen kon ma baamu ko ndax léeg-léeg day xaw a métti Cheikh Salif Mbacké dafa ne as gor mënul dëkk ci teggi tuuma mu woog saa suñu nee diw wax na lii ci Facebook wala diw wax na lii ci lii ñu ne la génnal dem wax bu yàggee ñu ñàkk loola fulla damay bëgg suñu waxee ñëpp dégg li ñu wax te jàpp ni loolu moo am parce que man lu ma gëmul du ma ko wax te bokk ma ci politicien boo xam ne day tappale parce que dafa bëgg carte bu yàlla nammee ni dañu yegg kenn mënuñoo tere yegg kon ma waxaat ko léeg-léeg nit génn wax lu garaaw garaaw ba pare waat ci kilifa est-ce que kilifa googu yëg na est-ce que moo ko yónni dañoo nekk jamono démocratisation de la communication ku xëy naan sa kafe ubbi sa page Facebook lu la neex nga bind lu la nga wax waaye man dama leen xamul sax banaan kii mun na ne maa ko yónni wala ci ñun la la bokk bind sa page nag ne man Pastef laa bokk yomb na kenn mënu koo tere kenn waaye li ñu xam ci diine ak li ñu namm ci diine te xam ni réew mi kenn du ko defar te boolewu ci diine ba mu mat sëkk kenn mënu koo defar te diisoo woo liggéeyoo ak nitu diine yi dama ne ñun bokkuñu ci ñoo xam ne dinañu wax lu ñagas jëmale ko ci kilifa diine nangul nañu kenn ku nekk mu am gis-gisam am yëg-yëgam am kenn ku ne am sañ-sañ ni man fii laa bokk Cheikh Thioro Mbacké wax na ko léegi musuma dem ci kilifa diine ne ko damaa ñëw pour nga jàppale ma amul bu ma demee foofu la may wax mooy ñëw naa xamle sama bopp ndax ci réew mi laa ne te yéen ngi may dégg su loolu weesoo nag am naa sañ-sañu sàkku ñaan ñaar yooyu laay wax ci kilifa diine yi ñi ma ko seetal nag bu ma demee waxtaan bi yaatu su ma amee lu may laaj ci masala wala ci diine ma laaj ko waaye musuma dem ci kilifa diine di fa beneen politicien musul am dem ci kilifa diine di boole wala di jooytu musuma koo def musuma koo def kon